nga xam ni mooy suñu yaay bu ko defee rek ñu may suñu way bi itam dafa jóg di suñu way Ahmed Khalifa nga xam ni moom yàlla dogal na ni bàyyi la ci bugaan du bugaan nekk magat bu ko soxlaa gis mooy loo koy si moom itam di jaar njaboot bokk nag ci surafa bu ñu gis ñu may ko sallallahu alayhi wa sallam ñu may ko mu toog defee rek daal di ko dalal may ko mu toog ndax Mbàkke yéen ñaan daal di si lay tànn di gën a wóolu waaye am na dund yoo xam ne boo leen gisee sa kaw daal mais nag dalal rek ay sama xarit ak ak yu rafet yi ko doon jural daal di bàyyi ba gis nga dalal ko mu toog Mouhamed ay baykat nee na kii yegg si léegi nee na kii yegg si léegi taxawaayam. taxawaayam. ci bugaan. ci bugaan. ak taxawaayam. ak taxawaayam. ci télévision. ci télévision. am na solo lool. am na solo lool. li ngay jàkkaarloo moom. li ngay jàkkaarloo ak moom. ci seen TV. ci seen TV. doo jàkkaarloo moom. doo jàkkaarloo ak moom. ci yeneen télé yi. ci yeneen télé yi. fu ñu ko wooyee. fu ñu ko wooyee. guddi. guddi ak bëccëg. ak bëccëg. Cheikh Ahmed Khalifa. Cheikh Ahmed Khalifa. ñëw na ñëw na. te doy na nag. te doy na nag. maam Khalifa Amadou. maam Khalifa moom la ñu. maam Abdoulaye. maam Abdoulaye. moo ko jur. moo ko jur. ku ne xam naa Abdoulaye. ku ne xam naa Abdoulaye. li ma ñu doole li ma ñu doole. fi mu jaar. fi mu jaar. ba ak maam Khalifa. ba ak maam Khalifa. ak ki nga xam ne. ak ki nga xam ne. moom la ñu wooyee Baye. moom la ñu wooyee Baye. waaye Serigne Mohamed mii. waaye Serigne Mohamed mii. bugaan. ku bëgg bugaan la. ku jàpp bugaan. ku jàpp bugaan la. ku taxaw bugaan. ku taxaw bugaan la. yal na yàlla fay. yal na yàlla fay. danaa toll woon koo xam ni bu ñu ko tolloo su kilifa ñëwee am na lu mu doon nag dugal ko ndax Fall nii jox kàddu gi Serigne Bassirou mi nga xam ne Serigne Touba yi yow Serigne Ba sama moom yaa rabbana innal wara taqalam li awliyaa jamaam li yasma sama moo ne ilayka yaa rabbana wara yaa rabbana yaa rabbana faghfir lana Serigne Ba wajjih lana lutfan wa annan yaa ahad yaa man taala lam yak yow sama kooku bu dul mag yàpp man dara ci sama sama yow sama mën ngaa ram yow mën ngaa ram ndax sama sëriñ Baara moo ne armée yi bu defee kenn la si man ndax may yóbbu ñëpp ay sëriñ Tuubaa ñoom mooy bàyyi may nga jëm sëñ sëñ Bara doon jiwu ko sëñ Tuubaa tànn ko ber ko ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ko yow mate nga ki waaye am na loo xam ne amoo droit si wax ko ëpp na bu sëriñ Bara di wax si si taw yow soo toogee fii ñu suul moom bi ñoo war na am yaakaar ni sëriñ Tuubaa am na dama ku ne saytaan yi soo ko toppee dama jël war nga gëm ni soo toppee ma yaa ngi àjjana bu la saytaane soo ko toppee dem sawar war ngaa gën di soo toppee xaalifa Moustapha yaa ngi àjjana ku ne man ku ne kenn mën kalamu da ngaa xamul ku lay sima moo ne simaamu fi yëpp yi maa duntuhu min maaliki xaalis ah, Sëriñ Tuubaa sama maam moo ni yàlla nas na lu damaa dafa yëpp teg sama loxo moo ko mën a def moom ñu ne alal mi man kaana xaddal xal man kaana li bi tamit kooku ma ñëw kooku mooy sa maam sama kàddu gi dama koy daane soo toogee def lu mel nii danaa ko seelal ba baax li sa bàyyi am muy sëriñ Aliou soxna moo ni mu ñëw ñi muñ la yàllay àndal soxna moo ni ma nga àjjana yow mii di yaayam jëppiwu ko bàyyam coon sekk jëppiwu ko ma dugg bàmmeel borom këram bii toog jëppiwu lu bàyyi maa jeew la lu koy wax soxna mi kii vocal yi ma moom la mu koy yónnee weeru koor la mu ne ma damaa bëgg Oustaz Mouhamed Mbaye nga dem si kër ga mu invité la waaye Serigne Bara soo demee na nga jàng eeru Allah ci Ablaye Ndiaye parce que Cheikh Ahmadou Bamba ko moo ko sas nii na ko Bara Diouf daa bokk si ñun moom itamit indi fi kon bu gaaw yal na fay réew mi li ngeen rabal rek loolu lay fay yow ab taalibi nga yow ab jullit nga yow gor nga yow nit ku bëgg lu baax nit ku ku gëm sa bopp nga nit ku nangoo liggéey te ñaanoo jaamu yàlla te nag waa kër Serigne Touba nag ma ñëw di dalal sama rak di sama xale mu am mbetteel lii bett ko muy wàññi muy dogees na ma jiitu fa ndax su avion bi su ma mënoon a taxañ avion bi su ma mënoon a taxañ avion bi damay taxañ avion bi ne jàpp ndax moomee sama yaay. waale ko ko ma ne ko waale muñal mu ne ma sëriñ Bara mu ne ko ma ne ko ah mu muñ naa waaye moomi mooy sama kon soxna ki dee yaag ñëpp a bokk nag su kay la nii nelawul borom këram la lañ fay nelawul su kay la sax fajar la ma ko booba maa ngi Touba lu su naa ne ko maa ngi Touba ndax damaa demoon gàmmu jiwaat ma ne ko su la maa ngi sama kër maa ngi ñëw yoon wi nii laa ko doon def soo déggoon ni baara dee na rek xamal ni loolu ndax ñun moomee toll suñu noonu suñu xol set na ñu ngi wax ñëpp sikkilee digaale di ñaan yàlla yërëm bu subaa liñ si war a wax lépp dana ko wax si doole seen affaire Serigne Assane mooy jërëjëf seen amal xarit jërëjëf am nit dama jëf seen ma doon nit am personnel doon nit ku yiw doon nit ku xam sa bopp gëm sa bopp waaye li tax ma bëgg la nag da ngaa gëm seen xar yi bëgg kenn wasalaamaaleykum. jërëjëf boo ko defee sëriñ bi waxoon naa ni ànd waaye sëriñ bi nawet bi ngi toog booy juróom bu jigéen ngi leen toog moom moo léegi ni ma Mouhamed ma ni ko la bay mu ne ma sa way jur bi way jur ko man yaay seen bu set xalaat ngi ñëw yaa ngi may ma ma ñëw may ma ma may ma ma ñëw kii di wax xool yaa ngi ñëw rek ma bëgg ma may ma xam naa li may def moom moom ma ma ñëw man ma man mii naa yaa ngi ñëw rek te yaa ngi see ñu ko fekk laa bëgg nga jaaraleel ma ñaan ak yéene yoo xamante ne jëmale ko ci moom yi waaye mu ngi koy jëmale ci way juróom jigéen wii di soxna jaara ndax nee na bisu tey bii ba gën a muñ ndax wax la loo xam ne boo ko waxee ñëpp wax nañ ko dama koy ñaanal yàlla yàlla yàlla na dajeeg gërëmal yàlla te boo déggee ñu naan yàlla bu set jiw moom it ñëpp am nañu yaakaar ci moom. maa ngi wax sànq yaay jàngale ci sa xamante ne bis anniversaire boobu laa ko daaw bi ko ne ci la mu dugg ci boromam kon te yaakaar naa yaay yaay yaay yaay séeréer sekk ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal. nee na nag bu la jaal ndax bu la jaalee lay mel ni yow yaa moom tiis bi ndax jullit la ak naqar boppam day jaar nee na nit musu koo wax ci àdduna mu jaay séeréer bu set lu gën a rëy muur bu ñu ne borom yow naa fi ba tey daje fi ak moom gis naa taxaw bi mu ko doon taxaw gis naa toppatoo bi mu ko doon toppatoo waaye yaay séeréer bu neex bu ma mën a waxal na yëpp dégg di la wax ci muur waaye ñaata des yow xam nga moom xam na waaye bu muur bi ngërëm lay doon lay wax ci yow la koy jëmale jaaree na nag kàddu gi sama yaay ñuy toog yaay doole ñu jàllale ko kon donc ngërëm laa ñu noonu bu ko defee nag ñun ñëpp ñëpp dañoo àndandoo déglu sëriñ bi ndax man damay sawar muy wax waaw bay pexe nee na way juróom yi toog muy sunu baay Ahmed Khalifa moo bëgg a sànni kàddu gi ndax moom ak Cheikh Modou Lamine bu ñuy toog dëgg taal yi te maam sax di ko ak seen matuwaay te keneen tax si ñu laaj kon loolu yàgg na seen diggante boo ko bu waajoon yegsee da koy bàyyee kàddu yi mu yëkkati kàddu ba lu mu bëri lu mu wax lu mbooloo mi dana am xam ne benn mi ngi leen biir yàlla yéen ñëpp ne ku fi teew rek yelloo nañu wax la suñu ndigaale ne wax dëgg yàlla day soxla si ne léeg-léeg Cheikh Tidiane ndokkam mi ne bugaan ndokkam mi ne bu fi ñëwoon di ko seeti ne xamul quatrième xamul cinquième waaye ca kaw la nee soxna moom mi Kébé moo fi gusa moo koy moo moo koy des waaye fekk na am na leneen leneen doole moom bokk na ci ci li mu yóbbu réew mi teg waaye nit koo xam ne waaye nit koo xam ne bu mëneem dee métti bu mëneem dee métti sax mënut a am lu fayee daal ci pour lu dundee ko may ko kooku ñett nekk dara am na nag chef maanaam xam ci defar boppam ba soxlawul dara pour boppam taxaw nag bu ne damay def damay ñu gëm ko. loolu. te ndax loolu. candidat bi nga xam ne trois cent soixante cinq. candidat bi nga xam ne ñu ngi dem bëgg a dem trois cent soixante cinq. muy gis at yi. ñetti téeméer ak juróom-benn fukk juróom. li mu ci mën a wax ci Bougane bi mu ngi ko woon ca trois cent soixante quatre mais mu ngi ko jox rek ne tey am na ko seet si woon di ko wax ne dafa bëgg nekk candidat mu ngi ko est-ce que am na juróomi milliards yoo xam ne wala nga koo ñàkk pare nga koo ñàkk pare nga koo ñàkk donte la amoo dara donte la amoo dara mun ko aw ma sax milliard mun ko xam nga lu xew mu ne ah mun candidat wàcc na candidat wàcc na ku bëgg a wër am réew ku bëgg a wër am réew maa leen di yor ni maa leen di yor te amoo paas te amoo paas amoo loo paase amoo loo paase loolu wàcc na lii am tey nag nee lii am tey nag day dogalul yàlla day dogalul yàlla waaye yow daal moom. su fekkoon ne soxna si. su fekkoon ne soxna si. jigéen dana nekk wurusu dara. jigéen dana ne wurusu dara. wurusu ngaram la. kon boo ko ñàkkee. kon boo ko ñàkkee. ku la newul massa. ku la newul massa. kooku fan noonu. réew mi. ndax réew mi. milliard yomb na. milliard yomb na. milliard yomb na. fukki milliard yomb na. waaye soxna su baax. waaye soxna su baax. loolu mooy dina mën a gërëm waaye lu ko def si dëkk bi nag laay bëri te déggul moom it benn lu may ci état te wér na ko buñ ko waxulee daañu ko xam ne jël na soxna yee daa jur doomi soxna yee ne moom la gën a tuddee loole. dafa jur si gone yi waaye jamono bi daal. mais te loolu nag doy na lu. am na foto jabar ba bu doon moom nga. léegi ñu jaar ci kër ñu ne kat damay bëgg a bànn sax. te bu baaxee li ma jox ma def. nga jox ko tamit. mais si si moo gën a bëri. waaye moo baax kese. waaye moo baax kese. yow moom. yow moom. am nga droit jooy. am nga droit yu. am nga droit xataraayu. parce que li nga am la kenn amul. kon li nga ñàkk kenn massa tuuti nee massa tuuti na ci yow ni daal tuuti na ci kenn rek moo la mënoon defal ko mën a mu jël taxaw mu ko demal san dama fompal mooy tëgg gin fompal te loolu amatul ku nee ku man loolu moo fi amatul kon nag ñun foofu la suñu yëngalee. mën naa ko ma neexee. nee mën naa ko ma neexee. daaw daaw jéeg bi ko ci màggal soxna May. ci màggal soxna May. ci lañu ko àndal. nee mu Serigne Abdou Khadre. nee na ma yow mii. nee na ko yow mii. yaa ma doon mu ne ma fu foo taxaw rek. mu ne foo taxaw rek. mën nga faa waxal Touba. mën nga faa waxal Touba. te kenn du ko wér. te kenn du ko wér. te sama doom dafa naan ci oto bi sax waaye sëñ Bamba. ne doom dafa naan ci oto bi sax waaye sëñ Touba. ne muy indi ko fii rek. ne ko rek muy indi ko fii. ah xanaa kon bu boobaa. xanaa kon bu boobaa. ñu xam ne raay bi téye parce que. ne parce que. bu baax nit ku baax. nit ku baax. nit ku baax. te bokk na ci lekk bu baax. boo bëggee lekk gi sax xorom. kon boo bëggee lekk gi sax xorom. warul a bañ lekk gi sax suukar. warul a bañ lekk gi sax suukar. diine na ci ñoo xam ne. am na lu sax xorom la ñuy togg. lu sax xorom la ñuy togg. ñoo xam lu na ci ne nag ba nga ba nga ku ci ne nag ba nga waaye doo bañ ba des. ndax dañuy mottaliwante ndax dañuy mottaliwante bu bii nekkee plat principal. bu bii nekkee plat principal. bii nekk dessert. bii nekk dessert. sama bàyyi ci boppam. mais bàyyi ci boppam. nett li ma ne ma. nett li ne ko. toog na dëkk bu ñuy wax euh, dànk seet. toog na dëkk bu ñuy wax dànk seet. nee sa bii mu ànd. nee sa bii mu ànd. moo jur yaayam xala xala Ibrahima seen àll seen nee na moom seen la sant moom it dàq seen la dëkk. ñu doon ko bàyyal ay tool. ñu doon ko bàyyal ay tool. moom fa ñetti fan. guddi gu njëkk ga. guddi gu njëkk ga mu ne ah. man de gis naa ba jaaxal. ñu ne ko lan la. mu ne pënd bu rëy. mu ne pënd bu rëy. mu ne jinne yaa ngi dem Touba. mu ne jinne yaa ngi dem Touba. ay junni junni ñu ngi dem. ay junni junni ñu ngi dem. kon duñ kenn xamul. kon duñ kenn xamul ko. ci ëllëg sa. ci ëllëg sa. ci la aw fas ñëw. aw fas ñëw. boobu téléphone amul rajo amul. ñu sëñ Baara. ñu sëñ Baara. mu sëñ Tuubaa. moo gën a àdduna. taalibe ji jinne mi la. taalibe ji jinne mi la. ñoom ñoo ko teel a yëg. ñoom ñoo ko teel a yëg. di daw di dem Tuubaa. mooy Mamadou Lamine Aminata Lo Aminata Lo moo jur jur Cheikh Moustapha borom ndéen kon nag loolu mel na ni mel na ni ku am yi bokk dana leen di xam ba jeexal leen kon nag walilaahi alhamdu maa ngi nuyu maa ngi nuyu képp ku ma bokkal diine ji tariqa tijaan ak tariqa tijaan ak doo lay wut salaatul faatiha ak doo lay wut salaatul faatiha ndax sax ndax sax bugaan yow bugaan dañoo am ay waxtaan dañoo am ay waxtaan te temps yëpp jotuma la te temps yëpp jotuma la waaye waaye am na lu ñu ma woon am na lu ñu ma woon salaatul faatiha ci salaatul faatiha bu ñu la ko defalee bu ñu la ko defalee ndox dana jeex ndox dana jeex ci yow xam nga nag ndax ndox lu ci yow ndax xam nga ndax ndox lu ci yow am na forme xam fokk toroo forme la waaye dañ koy dindi dindi ko bu baax di la ñaanal yàlla di la ñaanal yàlla gudd fan gudd fan ak wér gi yaram ak wér gi yaram ak bokk ci ñuy séddale ak bokk ci ñuy séddale ndax àddina ñaar ak ndax àddina ñaar ak fi ne kuy séddale kuy séddale ak ku ñuy sédd ak ku ñuy sédd ku ñuy sédd nag ku ñuy sédd nag boo bari lee boo bari lee du ci yow du ci yow sa koy séddale kon nag yow yal na la yàlla boole. kon nag yow Bougane yal na la yàlla boole. ci ñuy séddale. ci ñuy séddale. parce que. parce que. nga. góor nga. jullit nga. sa kanam dënku sa kanam dënku ubbi. tëjoo ci kanam kenn. tëjoo ci kanam kenn. nëbboo kenn. nëbboo kenn. làqoo kenn. làqoo kenn. gëddoo kenn. gëddoo kenn. dóoroo ku am loolu. am nga am nga cër. yàllaa la ko jox. yàllaa la ko jox. yàlla. yàlla. la nar jox tiiñ te jox na la tiiñ xaw ma nag bañuwaar bu rëy xaw ma bañuwaar bu rëy nga am na woyofam woyofam waaye dana yenu de wasalaam léegi nag ñu bàyyi kàddu gi pour sax ma joxaat la ñu dem ci sëñ Bachir su ko defee ñoom may ko nag ñu yëkkati jataay bi ndax sëñ Ba Cheikh Abdou Bachir du ne mukk damay dem waaye nag yàgg na waaye marto bii nga amee sa maam sëñ Ba di jaale si sëñ Moussa Mbaxali Diop ba mu yegsee ci arméeli daal wi man cër na ko ne koo fekk na ko jóge mooy si taxawaay bii tey Mohamed ma jox la nga jege noonu la moom man ak yow la ak ku bokk des médias noonu yow bu fekkee ne nga du ku mer moom it moom dana ma yee trois jours dugal lu xew Tuuba ma ne ko ana sama waay mun na déet waxal waxal ko dëgg moom du soxla tey ñun ñii ku mer jëli ku dem wax naa yow lu mu bu ñu nee ñëw nañ ci ku ne mu xotti la noonu la noonu la doog a ñàkk a te daanaka xam ci dara. jërëjëf Mbaye sama yaay yaa sànq ba léegi dañ ko wax ne ko nag waaye mbaaxam ak yaram muy ëpp ànd lu or ma dana dund ba naa yaram xale yi ñu muy la dafa comme ni ma waxoon nee naa asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. maa ngi indi samay kàddu ci kàddu yu gàtt di nuyu sëriñ bi docteur Ahmed Khalifa Niass di rafetlu kàddu yi di nuyu imam ci kàddu yu rafet yu ànd ak yar ak teggin di nuyu sëñ Abdoulaye Mbaye Pekh di rafetlu taxawaayam ci wetu Bougane bii di nuyu Mamadou Lamine Faye di xarit di soppeeku di nit bu baax di nuyu sëñ Bara Mbaye ndax wax dëgg yàlla bi yëpp yi amee ba léegi mi ngi jëm Bougane di nuyu maire Moussa Sy gis nga xarit gis nga soppe di nuyu ma Codé Ngom di wóllare Bougane di nuyu Watara di nuyu mbokk yi fi daje yëpp Bougane ku war a sant yàlla ndax soxna su baax du yomb wax nañu ni xayru mataa'i dunya mooy azawjatu saalih bokk na ci gën a nekk bànneexu àdduna mooy yàlla may la soxna su baax waaye jëm ji toog di ajaat ki ne jàpp ñu ngi koy masawu ajaat ki ne man Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Baara moo ma jàpp la Serigne Bass Baara dafa nekkoon sa wéyum nekkoon sa xarit nga fonkoon ko lool te loolu yëpp boo ko fonkee yow da ngay xeeñ lu baax bëgg di ko xeeñ guddi nekk sa loxo la la ko moom mi nga yëkkati woon ko may ko bugaan bugaan yaakaarul ku dul Serigne Mbacke Mouhamed Serigne Mbacke doonoon sunu mag di sunu kilifa tax ñu dàpp ko waaye sa doom yóbbu na ci bugaan diine te loolu yow mii yaa nekk ci suñu mag moom nit ku diine ñoroon ku góorgóorlu baax la. man mii daana ma woo. di ma laaj ay masale diine. loolu. ku diine ñorul. du doxe loolu. njaboot nag. boo ko a ci yow. te ëllëg yàlla di ko laaj. yar leen ci diine toqantal leen ci diine ay boobu yàlla di wax ndax ay boobu yàlla di wax yow ma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nuhu bis booba bàyyi daw doom doom daw bàyyi mbokk daw mbokkam daw xaritam àndandoo daw am dara du ko waral lu dul responsabilité bi dox ci diggante yi muy wayjur ak doom waajur waaye yow matal nga loolu ci say doom ndax fonk nañu julli fonk nañu julli te awwalu maa yuhaasibul mar'u yawmal qiyaama as-salaat li ñuy njëkk a réglé ci ab julli yawmal qiyaama mooy julli bu yéwénee lépp yéwén bu yàqoo dara du baax te loolu xiir bu daan ñu ngi lay sox sant bu baax a baax soxna Diop moo ma ko wax moo ni ma santal ma julli gërëmal ko waxal ma ko ni ko moom ñàkkul man nii ma ñàkk ndax moom téetu woon na ma foo xam yàlla rek laa ko seedal te ñun ñii ay kilifaam te ay sëriñam xam nañ loolu xam nañ loolu gis nañ loolu gis nañu loolu ci soxna moom moom it nag moom it nag nekkoon jigéen bi jàmbaar li ko daloon ku mu daloon dootoo liggéey dootoo dalee ci sa borom kër mu nekkoon ku mënagul te ñu wax ni ahlul balaa ahlul balaa laysa lahu ميزان وليس ينشر له ديوان يالا نتو نتو من نور فكيات تدوك مومنت day souffrir ñu wàññi sa cër ku la gis du ko xam ci yow ku la xool du ko xam ci yow nga mun ko te yàlla tax wax nañu fi ëllëg yow ma xiyaam ñooñu kenn du meese seen ay jëf seeni téere seeni téere kenn du ko xool ndax na toog metti woon na lool waaye nag yàlla dogal mu nekkoon ku gëm yàlla ndax alif lam miim ndax alif lam miim ahasiba nnaas أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسرون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاظمين آية جوز لميتك ما يعلمنا إنا لم نكتب قرآن ñi def loolu ak ñi joué ak man waaye muuy nattoom bi mu dalee ci kawam da ngay indi mu ñu yeneen ci yàlla ay yóbbu yàlla joxoon yeneen ci yàlla ay yóbbu pouvoir mu nekkoon yonent mu nekkoon yonent ba pare yàlla jox ko pouvoir yu rëy xëy. mu xëy ñàkk loolu lépp ñàkk loolu lépp yàlla natt ko ñeent fukki at. natt yu métti mu ngi ko ba mu mujjee la ko ca yàlla fayee daf koo wax ni ko yow de sama jaam la boo xam ni sa muñ rafet na te na mu naaw. moom itam mu ñam mu ñam ku ko xam. xam nga moom nangul nga ko nangul nga ko di daw di daw ba xëy daan waaye nag mu dem bii boo daan tëdd taal sa climatiseur taal sa doyloo say doom. doyloo say doom bañ a nelaw. nga toppatoo sa borom kër. ba mu nelaw. tey loolu yëpp nga dëddu ko wan ko ginnaaw. sa guddi bu njëkk doon tey lan mooy sa ngeganaay suuf lan mooy sa càngaay suuf waaye nag topp yàlla bi mu ko xamee bi mu ko xamee bërëb bee mu jëm ba bërëb bërëb mu jëm borom këram bii wax na ma ni ma jënd na ko jënd na ko lu ma ñeenti ak fukk la kon tëraay yi guddi gi bàyyi woon na ko xel te guddi bu jëm ci bàmmeel ay waay bu ma du xalaat lu la neex defal guddi gi jot muy bërëb boo xam muy bërëb boo xam ni xamoo ko dégg rek nga ci am tey ñu ne la la nga doon dégg tey ñu ne la yow la nga doon dégg xataay bi tàngaay bi méttiwaay bi lëndamaay